mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, réew mi fm dal leen nag jàmm ci seen émission démb ak tey nañu ko baaxoo dimanche bu nekk ci waxtu bi euh, tey nag ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi dañuy wéyal waxtaan yi ñu dooroon euh, si wàllum chomage ci sénégal ayu bés bi ñu génn waxtaanee nañu jéego yi ci état bu sénégal def waaye xam ngeen ni ci wetu état secteur privé bi itam mu ngi ci di ci def rôle bu am solo MEDES nag rawatina di mouvement des entreprises du sénégal ndax ñaar fukki at ci ren ñuy amal forum du premier emploi si wetu forum itam am na fondation emploi jeune boo xam ne njiital MEDES moo ko taxawal di président Mbagnick Diop tey nag ñu bëgg a ñëw ak moom ci jéegoy MEDES ak jéegoy secteur privé de manière générale président ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi ñu raw waxtaane chômage ak ni mu toll ci réew mi tey mais surtout effort yi nga xam ni MEDES ak secteur privé bi ñu ngi ko siy def dalal ak jàmm ci démb ak tey. waaw Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la féliciter comme lu ma am ko def ci liggéey bu def. Euh, si rajo bi ak de la de la rajo di nuyu sa nataango yëpp sa collègue yi nekk si rajo bi ak si groupe euh, Rewmi Network ak groupe Proma Consulting am mbégte toog ak yow tey si émission bi xam nga booy wax waxu xëy moom ku ko wax Sénégal rek sa foog sa xel dem si si Mbagnick Diop parce que ñaar fukki at maa ngi siy yëngatu. mais nag di profité aussi sa émission bi di souhaiter une bonne heureuse année sa auditeurs yi sa auditrices yi. ak képp koo xam ne rek yaa ngi yéen euh, yeewoo Sénégal yal na la yàlla defal jàmm ci at bu bees bi yal na yàlla busal ñu ci mas bi yàlla def ba koom-koom bi mën a continuer sa activité parce que fi mu nekk nii moom ñu ngi wax waxu xëy mais presque activité yëpp nekk au ralenti wala mu taxaw donc yal na ñu yàlla jàppale ba ñu commencé waat ku nekk delluwaat sa activité comme euh, bi dooraat nag euh, dëkk bi mën a dund daal lu ñu waree dundee. amin jërëjëf président euh, ni ma ko waxee nag tey chômage la ñuy waxtaane ci Sénégal chômage nekk na loo xam ne fi mu ne amul tànki ginnaaw day jëm kanam rek at mu jot mu yokk wax nga ko sànq ñàkkum xëy mi taroon na lool corona bi itam ñëw gën a compliquer mbir yi yow tey euh, bala ñuy ñëw ci vingt ans wu MEDES ci ci ci participation ban lecture nga def ci tolluwaayu chômage ci Sénégal. ah at bu jot day gën tar comme ni ko waxee day gën a metti euh, chômage surtout chômage u xale yi. Euh, rax si dool yi nag xale yi jàng ba am lijaas lijaasa moo gën a ti metti euh, booy xool ñaar fekki at wala fanweeri at ci passé yépp ci ginnaaw at bu jot chômage bi day gën a yokk euh, gouvernement yi fi jaar yépp ku si nekk góorgóorlu nga secteur privé bi tamit mais teewul kenn mënul saafara problème mu chômage bi boobu ba léegi donc dafa nekk loo xam ne ne dëkk bi yépp la laal amul kenn koo xam ne amuloo mbokk amoo rakk amoo jarbaat amoo mag amoo doom boo xam ne ne toogul liggéeyul te lu nekk mu ngi koy def mënul liggéey loolu sam booy xool moo tax xale yi si xalaat ñoom ñoo ëpp jom ñuy jéem a dem bitim réew pour daan seen doole yi même bu fekkee ne sa du woon seen vocation au départ mais bu buñ demee ba amuñu benn xamu nit moom boo demee ba amoo benn perspective amatoo yaakaar yépp tëju da nga ah naa risqué rek ma dem parce que su ma demee sama wërsëg foofu la nekk loolu sax moo gën a indi li ñuy wax temps yi immigration clandestine mais waxu chômage moom dama si sawar parce que comme li nga ko xamee rek daf ma ne yàlla daf ma si xiir ëpp na ñaar fukki at ma di si xalaat di si liggéey ba nu yegg si tey fii donc boo ma invité si émission chômage lépp loo xam ne ne xam naa ko xalaat naa ko foog naa ne mooy solution sunu biir jokkante tey naa la wax li ma si xalaat ak li may xelal état bi ak loo xam ne ñun tamit war nañ ko def suñu wàllu bopp ñun secteur privé. justement gis nañu ne depuis at yi ñu weesu chaque euh, année près ñu dégg structure bu bees boo xam ne dañ koy taxawal ngir xeex chômage mais teewul euh, chômage bi mi ngi gën di yokk euh, loola itam jaaxal nañu bari ban tontu nga ciy mën a indi. waaw parce que régime bu fi nekk rek da ngay xalaat ne war nga am loo def. si chômage bi surtout chômage des jeunes ba nga xam ne ne euh, structures yi war a xale yi ñu am xëy ñu koy multiplier muy bari sa booy xool seen résultat du farfar de parce que lii ma lay wax nii waxoon naa ko si temps Ablaye Wade ëpp na fukki at di ko wax di doon ko wax di ko wax sa ay naataang yi ma doon euh, interviewé dañuy multiplie structures yooyu pour jéem xel bu rafet moo leen ci yóbbu mais euh, booy xool finalité bi pratiquement du am résultat wala résultat bu niiw lay am par rapport ak koppar yu ñu ciy dugal. loolu moo taxoon fan a si bi may def euh, salon Afrique Tech bi des startups ma waxoon ne man de su ma sañoon dañuy mutualiser mooy boole structure yëpp def ko benn bu rëy wala ñaar yu mag yoo xam ne di am traçabilité. parce que euh, raar na yéex na nga nga xale bu am projet wala bu bëgg seen jàng yi bu bëgg a bourse bu dagare nga gis que mu ne am na financement kooku c'est très rare nga di ko gis c'est booy déglu structure yi bu ñuy communiquer danaa jox nañu tàngal milliard financé nañu tant de milliards financé nañu tant de milliards c'est yow ñu ngay gis doo si gis kenn koo xam ne ne moom peut soxlu soxlawul ay milliards juróomi million la soxla fukki million pour def ay activité am euh, mosul am euh, financement parce que euh, dafa tas tey booy xool DER mu ngi fii booy xool ANAPEJ mu ngi fii booy xool fonds de l'entrepreneuriat féminin mu ngi fii booy xool fonds GIP mu ngi fii dafa bari c'est loolu yëpp dañ ko war a boole mu am traçabilité parce que ñi si gën a xarañ mun nañ dem fii sa am fa financement pare demaat fee am fa financement parce que xam nañu naka la procédure bi ak naka lay mairie di demee par contre ku mel ni man boo xam ne ne sa dugg-dugg bariwul wala xamoo lu bari da ngay bind sa demande sa projet ak yooyu nga déposé ko toog di xaar kenn du la woo. donc moo tax mutualisation bi si lu baax la nag mu am traçabilité. ba pare sañu tuumaal leen nit dañ koy politiser maanaam seeni militant rek la ñuy jox ñi ci des du ñu gis. justement loolu sax justement dina dina dina permettre tuuma boobu sax ñu mu tegeeku parce que bu fekkee ne dañu nekk si réew boo xam ne xale yi ñoo gën a. Euh, population jeune bi moo ëpp ci population yi te ñooñu gisuñu benn dimbal sa ñuy gis ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen di dimbali dem naan sûrement ñii parce que dañu jege nguur bi moo tax donc mutualisation boobu may wax boole structure yi xool programme xale yi xool parce que doo sax seulement xaalis même ay formation mise à niveau dafa am solo parce que man ñoo ñu ngi koy def suñu formation emploi jeune di defaatal xale yi lu ñuy wax mise à niveau di leen recycler waat mooy ñi diplômé am ay lijaasa si ay secteurs yoo xam ne ne amatul benn benn benn débouché nga jël leen parce que am nañu background yi mooy jàng nañu ba am bac ba am ñetti at après bac ñeenti at juróomi at donc seen xel ubbeeku na ba xam ne ne boo leen bëggee recycler dina yomb si ay formation ñoom mun nañu firma euh, financer formation yi comme lu 3FPT di def mais peut-être dafa euh, xarañagul trop si loolu di di financer xale yi euh, ay formation Euh, di leen tàngatal parce que tamit boo toogee nga jàng am say sa nga toog ñaari at ñett ñeent juróom liggéey loolu li nga jàngoo yëpp da koy fàtte. Mm-hmm. donc formation mise à niveau yi daf leen di permettre quand même ñu nekkaat ak niveau et surtout. ñu recycler leen aujourd'hui dans les métiers qui sont les métiers d'avenir mooy tout ce qui touche le numérique tout ce qui touche digital tout ce qui touche même euh, euh la restauration le tourisme euh, le développement durable euh, tout l'écosystème donc euh, de l'économie verte et cetera yooyu ay métiers yoo xam ne ne yaa fukki at ah. juróomi at sa existé tul existé wul léegi existé na xale yi dem jàngi ay histoire géo dem jàngi ay sociologie jàngi ay commerce international loolu du métier. Ah. amuloo kenn du la jël nag loolu. par contre bu fekkoon ne état bi mu ngi def comme ni ma suggéré léegi di leen di leen reformaté waat mm. si métier yu bees yoo xam ne nit ñi dañu soxla ay loxo foofu mm. amuñu ko parce que kenn jàngu ko. kon problème adaptation moo am. problème adaptation am na bi ak offre bi. waaw kooku yàgg waaw kooku yàgg lañ ko wax sax ba nga xam ne ne nguur yi passé yëpp. Euh, surtout si juróomi at yi passé état bi def na ay ay jéego parce que dem na ba créer ministère formation professionnelle am na ay centre yu bari yu nu créer pour jàngal xale yi métier parce que loolu moo jëkk nekk problème bi mooy métier toujours damay jël exemple Allemagne parce que bu gën a nekk xale nekk France dama na dem Allemagne vacance te li ma jaaxaloon par rapport ak ñun France ak ñun Sénégal parce que dañu copier système France lépp la ñu copier bàyyiwuñu mais Allemagne boo demee xale yi am euh, BPC mooy BFM fii ah. su ñu paree rek da leen di orienté dans les centres de formation au bout de deux ans ñu génn am métier donc du yoon chemin sa entreprise lu ñu soxla doon nañ ko am alors je me posais toujours la question a l'époque yàgg na trop euh, euh, li tax français yi duñ ko def wala li tax sénégalais duñ ko def ba nga xam ne nag léegi quand même ñu nangul ko gouvernement bi ak ministre bi yore affaire au centre de formation emploi Dame Diop quand ñu ngi multiplier centre de formation léegi presque région bu nekk ñu ngi fay tabax centre de formation ba nga xam ne ne léegi centre de formation yooyu mais doyul xaajul gul doy ah. parce que xale yi fay génn ay ay téeméer lañu Euh, cent cinquante deux cent loolu du dara. par rapport ak besoin non seulement entreprise yi mais besoin marché travail. léegi nag ñu ñëw ci yow ak euh, MEDES surtout yow euh, kañ nga yëg ne daal fokk nga dugal sa loxo ci xeexum chômage bi. bi ma jógee France ñibbi si Sénégal 1999 la bi ma ñëwee ma créé sama première entreprise créé ma ko dama ko racheté. Hmm. ma ko jënd su ko ko yore woon. bi ma defee benn demande temps boobu soleil rek parce que moo fi gënoon nekk. mais li ma jot si ay euh, CV mu bari mu jaaxal ma si ñoo xam ne ne dañu jàng ba jàngatuñu. Hmm. ay bac plus cinq plus 6 plus 7. ah affaire boobu frappé mais ma ne ah xam naa benn phénomène rek la bu ñu dawalee un an ba ñu taxawal MEDES ma gis xale yi di gën a yónnee foofu ay CV xaw ma ne li tax. Hmm. yàlla xiir ma tamit ba ma nekkee xale ba léegi euh, sawar di jàppale nit pour mu dem pour mu avancer France bu nekkoon dama fa doon def bi ma ñëwee fii aussi su ma gisee ndaw boo xam ne daal xarañ na sa bëgg na dara bëgg na liggéey dama ne ah ndaw boobu dañ ko jàppale ngir yàlla bañ ci xaar dara bi ma xalaatee en mille laa ne xale yi de ñi jàng ba am lijaasa pare si man li may jot si ay demande ba pare xale yi may dajanteel si mbedd mi se koo si wax ma ne jàng na am na lii ak ak ñi ma wër sax ak ñi ma jege ak samay doomu xarit ak samay mbokk ak yooyu ma ne y problème sa boobu daa moon dégg mukk gouvernement bi boobu gouvernement bu bees sa muy doog ñëw bu Ablaye fekk génn nañ ci bu Abdou Diouf di si Ablaye Wade daaw moon dégg ñuy wax ay waxu problème mu chômage wala problème mu wala réinsertion ak sama man ma di ko gis si terrain bi ma ne ah lépp tamit bu ñu ko xaar ci état bi. bu ñu taxawlee MEDES. premier concept bi ma njëkk a initié mooy le forum du premier emploi wante dama ci yokk première emploi parce que forum de l'emploi am na si dëkk yëpp semaine de l'emploi am na mais peut-être yàlla sifle ma ko mooy euh, euh, ubbi sama bët dama yokk ci première emploi sa premier emploi boobu dem si sant yàlla dama ko si yokkee parce que teex tax na tey fépp fu ñu defee forum si àddina bi dañ may invité muy Europe muy Amérique muy Amérique du Nord muy fu nekk pour ma ñëw wax naka la amee xel dugal si premier emploi parce que forum de l'emploi moom mës na am fu nekk mais premier emploi bu mooy def clic moom la ñuy waxee en nangale the first one su ma demee New York loolu la ñu may laaj toujours naka laa defee ba first one boobu ñëw mooy premier emploi bi. moo jafe sax. te moo jafe. waa kay loolu laay see expliqué. <laughs> moo jafe parce que yi ma doon dajanteeg ak ñi doon ut xëy yépp am mosuñu xëy. ñu liggéey liggéey. donc si laa ko defee ma créé ko euh, forum du premier emploi def première édition bi euh, euh, benn février 2001 directeur général tey Sonacos di Modou Diagne Fada. boobu Abdoulaye Wade mi ngi doog a yegg si moo doon ministre de la jeunesse yore dee yore travail ñoom ñaar ñoo ñëw présider ko du ma ko fàtte mukk dama liggéey si ak Pierre Goudiaby pa liggéey si aussi ak société yu bari entreprise yu bari sawaroon si parce que kenn mosu leen pour ñu jàpp si affaire emploi noonu la démarré bi mu démarré noonu première édition bi yàlla jàppale lu mat cinquante euh, donc euh, juróom fukk euh, am si xëy lu ma téeméer am ay stage ma kontaan si mu mel ni ay xale yoo xam ne maa leen jur. bu ñu defee deuxième édition bi yàlla def tamit loolu gën a yokku mais en même temps aussi ñu ngi comme ni nga koy waxee si tubaab ñu ngi doon essuyer ay critiques mooy ñu ne ah di tax ñuy def forum di premier emploi kooku état bee ko def privé waru ko def. Manick bi daal ak Madesam boo motul dafa bëgg a politique xale yi daal la bëgg a am ak lii muy def nii xale yi dañu am dañu ko sopp dañ ko gëm. lu mu leen def loo xam naa dañu ko def moo tax dafa bëgg a moo tax muy def loolu fekk yàlla xam ne ne euh, depuis mu nekk xale ba léegi sam pap xam naa moom ma si influencé politique si boppam musul waaw musul nekk sama affaire ñu politique ñëpp la samay xarit lañu dinaa leen dimbali dinaa leen conseiller dinaa leen orienté mais man sax ma nekk un politique parce que politicien pour man c'est un peu péjoratif mm-hmm. pour être un homme politique mm-hmm. man sama wàllu bopp daal yàlla xiiruma si waaw wante nag lépp loo xam ne nag mu si biir politique yàlla may na si xam-xam xam naa ko moo tax ñiy diriger yëpp nekk suma xarit ba pare ma si liggéey ku nekk ku ñëw ku toog da nga liggéey ak man parce que peut-être yàlla may na ma si xam-xam euh, peut-être dina am lu may gis ak lu may ressentir ak position bu ma nekkee si samay activité parce que boo nekkee comme ñu ngi koy wexee si tubaab le nee dans le guidon lu bari doo ko gis waaw boo sëggee si li ngay def rek mm. doo gis li nekk alentour loolu mooy indi form du premier emploi loolu moo indi euh, euh, ñu si yëngatu bu ma defee première année bi def deuxième bi euh, bu ñuy def entretien may gis xale yoo xam ne ne dañu diplômé si ay secteur mais boo leen xoolee nga xam ne ne fi ñu diplômé ak ñoom seen personnalité méngoowul bi ma xalaatee mën na problème bi du chômage bi du diplôme bi problème bi orientation la ma créer ce qu'on appelle la nuit de l'orientation pour mu am différence ak le forum du premier emploi la nuit de l'orientation tout ak ma tuddee woon ko maa ngi ko doon def mu doon départ à partir de 17 heures mais bu fi mu si nekk jeunesse ak emploi ñoom ñoo mu monsieur président wala premier ministre 17 heures lay commencé ba minuit dama ko doon ubbi xale yi defagul bac nekk première nekk seconde dama ko doon ubbi ñuy ñëw ak seen waajur. parce que waajur toujours day bëgg doomam am benn métier bu prestigieux. c'est bien tey sa émission bi nag moo mën a xuus. nit ñi comprendre lu bari li tax. waaw léegi dañ doon ñëw ak seen waajur ma tamit ma doon invité ay orientateur ay psychologue ay psychosociologue ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ak ay bulletin ay fiche bu nu ñëwee ñooñu ñu laaj xale bi lan nga bëgg a def boo màggee. nga gis kii ne artiste laa bëgg a nekk kii ne man écrivain laa bëgg a nekk kii ne man docteur laa bëgg a nekk seen seen waajur yi ngi taxaw bu laajee seen waajur seen waajur yi ñoom nu sañoon day nekk avocat. wala ministre wala day wala <laughs> bu ñu dugalee fiche yi ak annotation spécialiste yi bu ñu génn waatee fiche bi résultat final bi dal naa ne xale bi prédisposition lu mu am ni mu juddoo ak ni mu mel. métier bi secteur bi mooy secteur loolu lan doon def ba nga xam ne ku fay jógee di nga xam ne sa doom bu continuer secteur bi loolu la bëgg sa nit ki lu mu bëgg orienté ko si. parce que yenn saa yi échec juddoo ci way jur forcé la nga def loo xam ne sentiroo ko wala bëggoo ko bëgguloo ko wala ñu xeeb métier xam nga si yooyu danga nga doon gis xale boo xam ne danaa man chanteur laa bëgg a waaw nga ne mais kii daf may fonto li may daj ci moom yëpp bëggul dekk la lu tollier la bëgg nekk wala wala wéykat wala yooyu fekk moom la sentir si bu si demee yàlla mu la nga si def euh, ba mu ba mu tekki si alors donc boobu lañu jëkk a comprendre que orientation bi moo doon déjà problème bi c'est ñu continuer forum bi ba 2003 yàlla defal ñu euh, ñu am dootuñu amati édition bu mel noonu 1300 participants boobu bay laa wan mooy directeur général LONASE mu jël ñëpp waaw loolu lu ma koy wax sa bariwul dafa naa bi yooyu mooy ñaari yoon mu jël mu ne participant yëpp maa leen di jël ah xale yi fa nekkoon yëpp mu jël leen sof trente cinq personnes yoo xam ne ne sama beneen xarit tubaab bu tudd Labadens moo doon directeur général euh, société générale mm. sama xarit la woon mu participé woon ne ma dinaa la jëlal trente cinq fanweer ak juróom mille trois cent et quelque yi bay laa jël leen 35 yooyu dem nañu ba léegi ñu si ëpp ay chef lañu parce que yàgg na 2003 la woon si société générale am na si kenn xam mos naa ko mos naa dajante ak moom benn dossier fekk mu nekk directeur du crédit un certain jouf bee laa jël xale yi ñii stage ñii mu jël leen ñii mu tas leen si région yi ak yëpp amoon na capacité boobu parce que euh, boobu LONASE mu ngi doon dox dëkk waaw loolu yëpp nga xam ne ne jaamu si yàlla la parce que xale yooyu yëpp xaw ma si woon kenn te duñu fay dara. te duñu fay dara waaw forum bi. Ah. depuis le début euh, dama wax sama kàddu kàddu boobu mu di ko sàmm ba tey bu ñu toogee fii ñu ngi préparé vingtième édition bi dama ne woon forum bi c'est gratuit. xam nga Sénégalais mën na critiquer ba nga xam ne loo mun ci def même booy def lu baax sax dañ seet nag lañ wala critiquer moo tax bi forum bi demee ba xaar ñëpp da ci participer ñi may liggéeyal xale yore forum bi ne ma ah président affaire yi diis la ne que doo bàyyi sa xale yi di fay seen foto seen photo bopp. man leen bu ñu fay dara nañu continuer rek parce que bu ñuy démarrer forum bi budget bi première édition bi fukki million la woon ak juróom fukki million ak juróom li tax fu ñu koy defee di nga ko loué da nga defar ay café ay meew ay kii pour seen pause kafe di nga defal lekk pour seen déjeuner nga di ko def ñaari fan. ñi jóge ci région bi da nga leen di fayal bu ñu ñëwee Dakar loolu moom donc gën a sonal da leen di héberger. c' est boobu moo doon métti nag hôtel Dakar yi cher nañ si bariwul ay centre yu mën a héberger mais loolu yëpp nga ne la ko def rek mais kooku première année la mën a dawalee ba fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn fukki million ak juróom yooyu tey budget forum bi mu ngi nekk entre cent cinquante ak deux cent millions. ba tey yaa ma gën a dégg olof. pour wax cent cinquante ak deux cent ah, millions. waaw téeméeri million sa xam na comme dama ne woon ne c'est gratuit. day continuer nekk parce que tey c'est des milliers de jeunes ñoom ñooy participer damay wàññi sa participation yi pour. pour ragal mu am frustré frustré mooy nga ñëw gis benn rek entretien ba tey ñu doon obligé dañ koy wàññi mais ñu ñu wàññi aussi du leen bàyyi noonu comme fondation bi loolu laay wax toujours ma leen forom bi ñaari fan la si at bi mais fondation bi trois 365 jours la lay liggéey fondation bi dafa am fichier fichier bi tey depuis ëpp na fukki at ak juróom sa wala juróom benn suñu fichier moo ëpp si Sénégal ay CV moo ëpp ñaari yoon wala ñetti yoon fichier national de la direction de l'emploi am nañu léegi soreetuñu cent mille personnes quatre-vingt-seize mille et quelques ren yoo xam ne ne seen CV mu ngi suñu biir machine tey képp ku bëgg am benn candidat muy comptable muy informaticien muy journaliste muy publicitaire muy génie civil muy loo bëgg a sa wooye fondation dama bëgg a benn ñun fukk leen lay yónnee. nga woo leen nga tànn pour te dire que euh, liggéey bi day continuer. so loolu yëpp tamit c'est gratuit parce que mënoon ñu def. boobu dans les années 2000 c'est sama xarit yu bari dañ wax naa ubbi société intérim ah. ba léegi booy xool forum bi dama interdir société intérim ñu ñëw di ci bokk parce que dañ doon ñëw def le maximum d'entretien ay 500 600 entretien jël seen CV buy forum bi passé ñoom ñu convoqué waat leen seen bureau jël ñi ci gën a baax léegi nag dugal leen seen base de données di leen jaaye entre guillemets société bu soxla comme lu ñuy defee société intérim ah. ñoom ñoo lay fay mais société bu mag bi la jël ñoom lay fay c'est-à-dire que société bu mag bi da leen fay deux cent mille ñoom ñu fay la cent mille wala ñu fay la soixante quinze mille liggéey ci sa kaw liggéey ci sa kaw bi ma demee ba xam ko benn tubaab soo am benn société intérim moo tax ma ma ma arrêté loolu parce que dafa am benn at boo xam ne ne genn wàll ñu doon liggéey ñu doon participer ci forum yi ci bari dañ leen jël Air Sénégal dañ ko doon doog a créé euh, banque sénégalo-tunisienne banque yu bari ñëpp moom mu jël leen dugal leen foofu sa mu ngi leen jëlee ci forom bi sa donc ñun suñu bopp sa duñ ko mën comptabiliser comme étant des jeunes qui ont été insérés par le biais du forum mais moom société am la waa kay loolu dañu arrêté société intérim yi ñuy ñëw di ci bokk noonu la ñu continuer yàlla dinu jàppale ñuy dem forum yi di yaatu ñuy invité ay nit yu jógee fu nekk ci àddina bi ñëw di def ay communication di wax di di di ñaaxale yi naka la ñu war a defee naka la ñu war a la ñu war a jàngee ba pare rax si doole ñun balaa forum bi chaque at yàlla mayoon tamit xel boobu ñuy def lu ñuy wax atelier traîner mooy tàggat leen ba nga xam ne ne bu ñuy dem si forum bi duñu am complexe mm-hmm. parce que dinañ jàng nag am ay lijaasa mais day am lu bari leen manqué mooy naka ngay mun toogee kilifa boo xam ne ne moo la wala utal jox xëy sa kilifa boobu yow télévision rek nga koy gisee wala si rajo yi wala si kii bi da ngay ragal boo taxawee da ngay stressé wala di nga dem sa ba boo toogee ki la wala jël nga fàtti nga jàngoon yëpp ak yu bari ak yu bari ak li ngay soloo ak li ngay toogee yooyu yëpp daf si compter donc ñun forom bu yegg si fukki fan ak juróom avant forom bi dana leen tàngat wax leen yan erreur la ñu war a éviter naka la ñu war a toogee naka ñu leen seen bopp ñoom si ñu am confiance en soi ñu gëm seen bopp xam ne ñëwuñu di saraxu dañuy offrir ay services parce que li ñu jàng moom dañuy offrir donc da leen di préparer ba nga xam ne ne psychologiquement xale yi pare nañu balaa forum bi loolu nag mooy tax forum bi saa yu amee mu am succès parce que xale yu bari fekk préparé nañu ba pare bu demee ba toogi ñu leen war a jël ñu mën a décrocher li leen wax seen xëy bu njëkk premier emploi bi alors tey vingt ans après nga initié forum du premier emploi ñu ngi jëm ci vingtième édition mois de février la ñu ko jàpp euh, tey boo toogee euh, ban sentiment ngay am ak ban bilan surtout ngay tirer ci dix-neuf dernières années yi. ah mais Fatou ku def loolu yàlla xiir la si. mënoo lu du sant yàlla may sant yàlla bu baax euh, yàlla moo xam tax mu xiir ma si loolu mënoo ma xiir si leneen mais xam yàlla xiir la ngay def si lu baax. di jël ay junni junni xale yoo xam ne xamuloo leen duñ say mokk duñ say dara ngay jël sa xa ñaq boo xam ne feneen nga ko gañee nga dugal ko si ñoom sant yàlla parce que tey bu may wax ak yow c'est des milliers et des milliers de jeunes diplômés depuis vingt ans qui ont réussi euh, ñoom ñoo am xëy yàlla jaarale ko samay loxo sax xaw ma leen li tax ma si am bëgte damay tukki lu bari parce que du ma tukki benn yoon si du ma dana teg ñaar nit wala ñett si biir avion bi ñu ñëw fekk ma fu ma toog si kanam nuyu ma gërëm ma ne ma ah xam naa xamoo ma wala xàmmewuloo ma wante man de si forum laa bokkoon 2003 2005 foofu la am sama xëy bu njëkk ba jaar fii jaar fii léegi maa ngi dëkk Genève maa ngi liggéey Nations Unies maa ngi liggéey telle structure nga gis keneen ne la ah foofu laa jaar léegi maa ngi Abidjan wala maa ngi euh, fële lu mu tule ci euh, euh, dëkku Nigéria boobu capitalu kii Nigéria Abuja. maa ngi tel banque maa ngi tel banque wala maa ngi New York maa ngi fii maa ngi banque mondiale loolu amul pur man amul dara lu ko gën a neex. si ñoo xam ne ne xamuloo leen ñoom. saa yuñ la gisee. seen xel dina dem ne yaa leen jàppale. loolu nag président naa la dog ndax jaaxal nañu bëri euh, xam naa ne question boobu day ñëw di ñëwaat. bëri na forum yu ma fekkee ñu naan la mais ñaata nit nga wutal xëy. mais man mës naa comprendre li tax effectivement euh, mënu leen a joxe ay chiffres. Hmm. parce que yéen su ngeen wutalee nit ki après pare na topp leen ci di bind ay bilan wala ay non man man loolu dama dama ko gis nekkul lu ñu may wax parce que effectivement am na foog naa forum mu daaw jéeg bi la koo xam ne dafa am liggéey kanam yaa ko wóolu ci beneen salle mu ñëw euh, waa Dippi World ñoo ko jël il avait un profil assez rare mais mu pare dem ma gis ne nekkul lu ñuy topp euh, lan moo tax topp leen ci pour am ay chiffres comme ñëpp mën a taxaw ne ñun wutal nañ vingt mille jeune par exemple liggéey pourquoi loolu du ngeen ko def xam nga dañ naan maye yàlla mu ëpp doole wala euh, ñaanu yàlla fayu yàlla waaw parce que nit ñi boo ñu topp da lay dugal ci seen ay créneau fekk yow nekkoo ci loolu ñoo gën a mën di def ay chiffres bu neexoon si di ko gonfler mais yàlla moom dafa jub il juste moom xam nañu lu ñuy def junni junni xale yi ne amal liggéey ñoom xam nañu ñoom tamit. mooy ñi ngay dajeel. may dajeel bi si mujj mooy màggal tubaab yi mujj dama dem kër sëñ bi am ko fa fekk màggal tubaab bële la je crois bële la xaw ma bii euh, dafa nooy la sant. mu ne sëriñ bi kii dañ ñaanal ko ku baax la mu ne am na soxna mag ñaari doomam moom xaw ma de mais moom mu ubbi utal liggéey tey man maa yore hôpitalu Diourbel saa yoo ma ko gisee télévision dama naan sama waa kër sa moom dafa naa ne moom mooy ñaar fukki lu ba ma wax phrase boobu ma koy dégg toujours ma ne ah si ñaar fukki gémmiñ bu bokkul kon wala na am tuuti dëgg danaan daan toujours su ma génnee daan kii kii am na yàlla lu mu ko may il faut ñu ñaanal ko parce que kii daal kii daal du nit daal waaw mu ne ma saa yu génne naan kii daal du nit. <laughs> loolu lay wax waaw loolu lay wax parce que nee na moom mosul gis. nit ku baaxe noonu nit ku am xam-xam noonu di jàppale sa moroom jullit noonu ak. ku dul jullit pare si du la topp du la laaj du la ne defal lii defal laa kii pare na si ah waaw wàlliwu waaw wàlliwu la <laughs> wàlliwu la ñuy wax toujours. toujours toujours chaque jour damay dégg loolu si ay nit yoo xam ne ne dama leen jàppale. donc loolu aussi ma si sant yàlla parce que effectivement saa yu ñu def forum journalistes yi bu ñu ñëwee taxaw première question bi est-ce que vous pouvez faire le bilan combien de jeunes vous avez insérés et chaque fois ma réponse elle est toujours féroce et même virulente parce que je leur am ngeen chance yéen ba taxaw fi yore seen micro di ma laaj ñi nekk si biir ñoo leen dàq jàng fukk yoon a juróom-ñett ñi fi nekkoon daaw daaw jéeg ñoo leen dàq jàng fukk yoon a juróom-ñett peut-être yàlla moo dogal ngeen am chance ba am xëy ba taxaw fii di wax mais man ñëw moo fi di compter par benn benn ngeen foog ne man dinaa mobiliser ay ay centaine ay téeméeri téeméeri entreprise mobiliser samay équipe yëpp jël sama alal def ko si comme ça rek pour la forme rek pour le plaisir de le faire mais parce que am na yoo xam ne jarul expliquer mm. si ñu nekk si salle bi yëpp nga naa ne boo leen demee boo leen ne xam ngeen président Mbagnick physiquement xamuñu ma xam nañ ma si télévision bi mais mosu ma si toog ak kenn c'est bu parce que kii sama mbokk la boo tax kii ku ñëw inscrire tey ñu ngi war a dem forum bi dama ne nañu arrêté inscrition bi mais kan moo mun nax nit ñaar fukki at mais mënul nekk mënul nit kay di ko nax benn at ñaar ñett ñeent at bu fekkoon lu ñu def amul benn euh, euh, euh, njëriñ mais nit ñi arrêté nañu bu yàgg mais ay junni junni ñoo ñëw di inscrire dama ne arrêté leen inscription bi si pourtant ñoo ngi nekk si si mas bi mais xam nañu tamit. que kii ñu ko seqool ak équipe am man damay yërëm sa sama xale yi may liggéeyal parce que ay xale lañu ñoom tamit si ñu si ëpp aussi si forum bi laa leen jëlee. ba ñu dem ba nekk kilifa si sama samay bañ naa ko ba sa fondation emploi jeune boo xam ne ñoom ñooy organiser en réalité forum bi administrateur yi tout le temps ay anciens foramistes laay jël embauché leen ñoom ñu dem ba di accueillir seen ay moroom jàng ba am lijaasa c'est surtout une chaîne mais kooku ku xelam yaatuwul sa amoo générosité mënoo ko comprendre sa question bi nga wax c'est pertinent parce que tout le temps dafay ñëwaat parce que ñun am nañu ay esthétique mais esthétique c'est en deçà de très loin de la réalité tout simplement dama koy wax xale yi aussi dafa am benn côté boo xam ne ñoom tamit dañuy égoïste dañu dellu si. da leen encadré bu ute xëy du ñu dellu siwaat ne ah man de Fatou Thiam Ngom ute ngeen ma xëy tey maa ngi nekk rajo réew mi ñu mën a bind Fatou Thiam Ngom forum euh, quatrième édition cinquième ma nga fii du ko def. ñun des fois ñu ñooy remonté waat may wax xale yi. bu forom passé ba ñu feex remonté waat leen xool leen entreprise yi participé yépp ngeen woo leen laaj leen ci euh, entretien yu ñu def ñan ñaata la ñu retenir ak yooyu ñun loolu la ñu mën a après def sa am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba fa ñuy passé ñaar ñetti weer mm-hmm. parce que dañuy jël CV yi benn moment ñu am besoin mm-hmm. woote woo ñooñu ñu dem ñu jël leen donc comme ni nga ko waxee am ay statistiques yu fixe mm-hmm. dafay doy waar mais ñu defuñu ko parce que on ne la politique on ne demande pas aux autres de voter pour nous ou de lii ak là donc amuñu une obligation de devoir euh, euh, euh, taxawal ay statistiques da Euh, édition 2015 euh, bi tant ñoo participé temps ñoo kii ma dama koy jële rek sama calcul man toujours mooy si volume bi dama ne entre 2001 première édition boo xam ne on avait ay 700 800 participants mm. ba 2019 yoo xam ne on a des milliers de participants su ma xaymaa yëpp si 19 ans 20 ans je sais que pratiquement soriwuñu 100 000 personnes yu participer ci forum bi ma ne naa jël 1 pour cent de cent waaw am nga 1 pour cent du dara. ah bu jëlee 1 pour cent de 100000 kon yow am na eh, au moins 1000 ou 10 000 jeunes xamatuma 1 pour cent si ñaata lay def si kii bi yoo xam ne hôtel nga lay xëy. 1 pour cent mooy bu 1000 personnes participer benn am na fa xëy. benn boobu rek. c'est un chemin nam la. parce que ñu kooku. participer naa ci xeex bi. kooku fayul dërëm. Mm-hmm. dañ ko encadrer. Euh, defal ko atelier training euh, yóbbu ko mu def ba pare ñoom ñëpp dem leen yóbbu hôtel bu gën a mag si hôtel yi mooy King fat Palace bi ma koy commencé def ëpp na fukki at ak fukki at ak ñeent ay 2006 ñu ne ma li tax ngay yóbbu xale yi foofu ma leen xale yi tax ma leen yóbbu foofu il faut que xale yi ñuy rêver tuuti parce que seen kër la ñuy nekk ñu si bari banlieue gànnaawal gi banlieue rek gànnaawal gi province àll bi. donc dañuy gis télévision guddi ay Macky Sall ministre yi gan yu Macky Sall président yu ñëw ñuy gis ay méridien ñuy xalaat ñu kañ lañ teg suñu tànk méridien ma ne comme am naa possibilité ñoom dugal leen bii méridien dana leen dugal foofu def ko foofu. méridien dafa cher su may def forum bi ñaari fan yëpp damay privatiser mooy méridien yëpp laay jël saal yëpp laay jël lépp lépp ñu ñoo fa nekk ak xale yi nga gis xale yi ñuy photo si jardin yi nga gis leen si couloir yi ñuy photo euh, lu ñuy wax. Euh, tout ce qui est ñuy taxaw ci ci lumière yi photo yooyu déjà dundal na leen. deuxième bi mooy xale yi du ñu gis amuñu opportunité sa di wax ak koo xam ne ne ci mbirum xëy la ñuy def ay atelier thématique ñuy dugg di déglu. Mm-hmm. naka nga war a def ba am xëy yan formation nga war a def léegi fu ñu toll nii air bi yan formation moo gën a dox nag boo amee xëy naka ngay mën a kiiwee naka ngay mun progresser sa liggéey ak yooyu du ñu am ku wax ku ñu wax ak ñoom loolu rek waxuma si affaire xëy. loolu rek c'est en plus pour xale yi. beneen bi mooy seen CV yi bu ñu koy yónnee di ut xëy. yi ngi koy yónnee directeurs yi présidents yi dañ koy jël rek jox ko seen secrétaire ñu classé ko. Mm-hmm. mais bii am nañu possibilité toog ak koo xam ne moo leen war a jox xëy. ñoom ñu jaay seen bopp ñoom seen bopp si dañu xam seen limite ak seen possibilité ñoo xale yi. donc c'est un tout c'est pas seulement les gens font focus toujours si ñaata xëy. la ñu alors que c'est un ensemble parce que xale yi participer da nga leen defaral formation mooy atelier training bi da leen permettre ñu participer si ay atelier thématique ceci ëpp damay woo ay tubaab woo ay africain ñoo xam ne ñoo gën a Euh, euh, euh, spécialisé wu si affaire insertion formation ñu ñëw c'est yëpp comme lu ma la ko waxee tout et gratuit pour ñëw pour ñëw mais yëpp man je le prends en charge ak sama équipe ak samay partenaires yoo xam ne léegi mu def ñaar fukki at ñu may jàppale si forum yi parce que ñoom gëm nañu loolu affaire bi gëm-gëm la ah. waaw loolu moo waral question bi réponse bi ma soli si. parce que des fois dafay jeexal sa parce que booy topp waxu nit ñi ak yooyu da ngay bàyyi. parce que dana man gañuwuma si dara de. Mm-hmm. man alal bi li ma def forum ñaar fukki at yi mais tabax naa si au moins fukki immeuble. tabax naa si fukki immeuble di ko loué dootuma soxla liggéey mm-hmm. mais dama ko def si nit ñi. parce que yàlla moo bind nit ñooñu sooy jaamu yàlla foofu ngay commencer du dem jumaa ja toujours yore course bu rëy di wax ba pare sa xol baaxul parce que problème bu ñu am Sénégal mooy dañu soxarante suñu biir soxar ba nga xam nit buy def lu baax sax di nga jéem a xool fan la affaire bi am tuuti benn fay nga dugg foofu bés foofu au lieu que nit ku nekk dafa bëgg waaw góor faatu sa liggéey bi ngay liggéey ak keneen ak keneen bëgg ñu ne waaw góor yaa ngi yaa ngi yaa ngi góorgóorlu yaa ngi avancer li ngay liggéey rafet na li ngay liggéey set na man damay kontaan des fois ma gis sama ay ay ay ay collègues patron ak ministre ak yooyu ñu ne ma Fatou elle est très bien elle bu si mujjee barke démb la l'agent judiciaire de l'État euh, Moussa Thiam euh, qui était avocat dañuy waxtaan mu laaj ma la ne ko bu ñuy fi ak mu ne ma elle très bien elle est très pro elle est boobu damay am mbégte mais nit noonu la wala mel bu ñuy wax lu baax si nit nga nga nga apprécier. mais nga bëgg nekk si dëkk lu nit def nga ne baaxul lu nit def nga ne non du loolu lu nit def nga ne am na lu mu calculer ci ginnaaw mais loolu duñ dem moom laa wax toujours en français boo gisee ma di ko wax euh, booy xool daaw bu may def Africa Leadership Award Paris ñu ne dama dama dama dama dama dama daanu boobu ak yooyu mais parce que da ngay dem ba sa xol dafay fees parce que on n'a pas le culte de l'excellence on n'a pas le culte de la générosité baax yàlla moo koy def ci nit da ngay gis sa ko bëgg a baax du mën a baax mais boo gisee ku baax bàyyi ko baaxaayam mais bu ko jéem a xaja man li muy def yëpp man ñaar fukki at ñi ma doon xeex boobu ba léegi léegi dama leen di yërëm parce que ñëpp dañuy ñëw ci man la ñuy jaar bu ñu soxlaa dara wala bu ñu bëggee gis benn nit wala bu ñu gis dañ ma xeex xeex xeex parce que dama yegg si ma taxawal MEDES mouvement des entreprises du Sénégal li tax ma taxawal ko bi ma ñëwee wax naa la ko entreprise bu ma njëkk a ubbi dama jël racheté benn entreprise ma bëggoon dugg si si monde syndicat yi mm. c'était très difficile il faut nga dem si benn syndicat syndicat boobu mooy dem adhérer si yow si organisation partenariat comme nag dama am benn esprit rebelle noonu la mos a mel et puis je un esprit libre wax naa la ko bu ñu commencé émission muy nguur bi ab Macky Sall moo fi nekk mu doon nguuru Ablaye Wade bu subaa keneen moo fi nekk li may wax dama koy wax li may def dama koy def parce que xaaruma nguur bi pour def lu ma war a def defe naa ne liberté boobu ma am bi ma nekkee xale ba léegi moom laa continuer ku ñëw nag danaa liggéey ak yow si suñ si bari yoo xam ne samay xarit lañu yàlla moo dogal si suñu ay activité ñu dem ba xamante respect bi am Euh, ñu nekk ay xarit yàlla di dogal ba ñoom ñi nekk ay position yoo xam ne ne ay position yu privilégié la tey ñoom ñoo ŋàkk nguur bi ñoo koy dawal mais temps Ablaye Wade aussi pareil mais ministre Ablaye Wade yooyu wala ñu fa nekkoon Ablaye Wade samay xarit ñu ba léegi da ñëw mm. dama gis si pour ma lii wala lii parce que munoo wax yépp xam nga mais la nga xam ne kon yow fi nga nekk position bi nga nekk yàlla moo la fa teg c'est transversal ñëpp dañuy wax tey Macky Sall Mani Diop xaritu Macky la mais dëgg la suma xarit la taaw taawu Abdoulaye Wade mi ngi koy sonal je faisais partie des rares personnes bu nekkoon si wetam di ko jàppale di ko conseiller di ko gunge te pourtant bu mu gagné mën naa ñëw taxaw ne damay nekk ministre peut-être kenn xamul est-ce que proposé wu ma ko mais man yàlla daal moo ma jox mission si àddina ma di ko def di si sant yàlla mooy di jàppale néew doole yi di jàppale ñoo xam ne ne jaaxle nañu. di jàppale ñoo xam ne ni seen waajur sonn nañu si ñoom se xale yi seen waajur dafa ñuy woon def yépp amuñu benn possibilité parce que xamuñu ministre xamuñu député xamuñu président xamuñu lii xamuñu laa ñu ngi toog yàlla xiir ma ñooñu ma leen di jàppale sa awma si benn regret parce que li ma def depuis ñaar fukki at tey maa ngi siy sant yàlla parce que am na ay famille yu bari am na ay njaboot yu bari yàlla sama loxo la seen wërsëg jaar mm-hmm. ba ñu am xëy ñii am liggéey ñii tukki

mu wóor ma ne ñii dañuy génn dem seen yoon te ils ont été recrutés sama kanam may xool donc li tax ma laaj la question c'était pour que ñi lay déglu ñu comprendre xam nga nit tam buy gis lu mu xamul yenn saa yi nu xelam ñëw ak commentaire bu bu xelam daj rek moom lay teg mais c'est bien nga wax nit ñi pour que ñu comprendre ndax liy firndeel ne yàlla moo tax ngeen di def li may wax aussi du pour lu la neexaa ah. mais euh, bu doon ne defu leen ko ngir yàlla kon da ngeen di dajale seen ay chiffres di ko di ko ko defee politique ci état wala di ko defee neneen émission Demb ak Tay ngeen di teewlu ci Rewmi FM président Mbagnick Diop Diop ñuy dalal njiital MEDES alors président ñu ñëw léegi nag ci euh, structure yi nga xam ni état jot naka taxawal démb ak tey wax kon ñu ñëw tuuti si si démb depuis euh, nguuru président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall euh, lan nga jàpp ni xëy na def nañ ko mu wone résultat bu positif ak yan nga jàpp ne teg nañ ko fi vraiment te amul benn jeexital ci jeunes yi ndax structure yi bëri na xaas bi ñu ciy wax bëri na mais yi ñu ci gis résultat bu dee am na it lu néew la waaw euh, dinaa yéeg sa euh, au-delà de Ablaye Wade parce que balaa régime Ablaye Wade quand régime président Abdou Diouf ma fi nekkoon. Euh, structure yu nu taxawal wax naa ko bu ñuy démarrer commencé waxtaan bi structure yi bari nañu mais structure yi ñu ñuy seen biir ba nga xam ne ne li yàqu mooy ëpp lu ñuy defar wala ñi comprendre système bi dugg si utiliser ko pour seen fin propre mais du nekk intérêt général booy xool dans les années 70 yàgg na trop goppek la jëkk a créé Racine kan moo ko doon dirigé kooku Ablaye euh, Abdou Diouf moo ko créé woon bu ñu fa paree ñu def opération maîtrisard kooku xale nga mais dégg nga ko boobu maîtrisard yi bari nañu chômage bi bari grève yi bari ak yooyu bu ñu ko créé entre 1978 ak 1980 ñu jël ay milliards yu bari bari bari dépensé ko pour financer maîtrisard yi ñoom tamit c'était des maîtrisards en sciences éco comme tey y a milliers de maîtrisards euh, euh, de licenciés en sciences ko sa débauché bi pareetul ñu financé leen pour ñu créer ay boulangerie lépp lu jëm ci ay transport jënd ay car commerce dugg ci pêche pêche yooyu mais booy xool ñett wala ñeent ñoo ci survivre donc milliards yëpp yàqu. amuñu woon assez de préparation aussi. am wa xam nga naroon naa ci yegg ci fin bi. mooy ku musul yore fukki junni boo juddoo ba ma ngay tawlu noonu moo soo yore fukki junni yu bokk ak baay nga jékki-jékki jox la fanweeri million wala juróom fukki million boobaa doo xam looy def li nga doon rêvé rek moom ngay jéem a def jënd lii jënd laa def lii def laa pasar pasare ko sa art tax ñu jox la ko pour nga liggéey la pour yow sa bopp nga créer emplois yow sa bopp li nga créer mu pérenne mm-hmm. parce que ñun africain amuñu culture pérennité suñu entreprise ah. booy xool tubaab bi da ngay gis ñu ne la entreprise ça date de 1781 ça date de 1856 ak yooyu ku ko créé nekkut fa doomam ñëw kooku nekku fa doomu kooku ñëw doomu kooku ñëw ba 200 ans. Ah. entreprise baa ngi dund. mooy pérennité boobu ñun amuñu culture boobu comme li ma lay waxee sànq ne amuñu culture de l'excellence. Ah. mooy gis kuy def lu baax nga gën koo ñaax amuñu culture générosité mm. mooy gis kiy jàppale nit. nga gën ko euh, encouragé ñun dañuy def yëpp pour nga découragé da nga bàyyi yooyu yi nga doon def si lu baax. ñëpp toog yàpp bu ñu paree loolu si année 77 toujours si nguuru euh, Abdou Diouf moom tamit il a créé beaucoup d' entités pour pour pour jàppale xale yi euh, kii les jeunes diplômés mu créer fonds national pour l' boobu aussi résultat yi presque nul kenn fàttaliku ko sax. mu pare mu créer délégation pour l'insertion la réinsertion et l'emploi ñu tëddee ko diir comme diir rek le verbe DIR hmm. d i e. boobu Djibril Ngom la ko dénk Djibril ngoom bu mu paree si diir mujj na nekk ministre de l'économie des finances nekkoon na aussi directeur port nekk aussi directeur des ICS moom la mujj a nekk si nomu tànn am na benn élection présidentielle boo xam ne sax candidat la woon boobu 20 milliards lañ si dugal mais vingt milliards yi dafa seey kenn gisu ko amul si kenn koo xam ne ne financé na la wala accompagné la la tey nga ne def naa lii kooku si année soixante dix quatre vingt astafurlah si année soixante soixante euh, quatre vingt quatre vingt dix entre quatre vingt dix jëm deux mille. après ñu créé dernier fonds bu Abdou Diouf créé mooy fonds pour l'emploi kooku Serigne Diop lañ ko joxoon Serigne Diop mu mujj nekk garde so Sceaux mujj nekk médiateur de la République boobu aussi pareil mënuñu la wax tey. résultat bi lii la ñu def après nag ñu yegg si si deux 2000 yooyu mu ngeen suivre parce que boobu fekkee ne yéen vous êtes actif mm-hmm. année 2000 yi muy régime Ablaye Wade bi mu ñëwee lu mu njëkk a créer mooy FNPJ Fonds national pour la promotion des jeunes mu jël 30 milliards au départ injecté ko si dugalaat de si yeneen milliards mais FNPJ mënul la wax mënul génne tey fukki nit xale yoo xam ne financé woon na leen boobu politiser nañ ko yu bari et puis mu amoon aussi choix profil administrateur fonds bi ba nga xam ne ne fonds bi dafa mujj pratiquement ay bor ay problème ay xeex ay yooyu parce que dañuy dem Pikine jël jeunes yoo xam ne ne yépp foofu y avait la politisation financé jël feneen financé amul suivi comme li ma doon wax léegi xale bu musul yore fukki junni wala ñaar fukki junni nga jël jox ko 15 20 millions xale xam lu doon def ñi la doon jënd scooter moto def lii def laa ñii dem jënd visa dem tukki defaraat seen kër donc amul sens parce que si ginnaaw en amont dafa am solo mooy def ay études xool les profils les dossiers est-ce que kii financement lañ ko war a def FNPJ peut-être loolu moo doon faiblesse am mooy amul woon lu ma doon wax étude en amont mooy ku déposer le dossier ñu xool ka kii est-ce que am na euh, profil entrepreneur est-ce que mun na dugg ci affaire monde entrepreneur extra mais ñoom dañoo jëlee lu mat 500 dossiers boo xool ñi ñu xam wala ñi seen mbokk yi xam wala ñu fay liggéey ñu xam kii ñu financé leen lu ci des kiiw léegi nag ñu am problème recouvrement parce que il recouvrait même pas 10 pour cent des montants financés bi euh, président Abdoulaye Wade gisee loolu ñu boolee ANEJ ANEJ dafa naa ni semaine passée sax su ma juumul Euh, ki ko doon diriger euh, euh, moom nga invité mm. kii Abdou Khafor Touré muy sama rakk bu baax mm. foofu lañu xamantee sax pour te dire que dama yàgg si affaire u emploi jeune mu nekkee ANES bu ñuy jëkk a gisante lañuy dañuy gisante doon préparer benn forum waaw maa ngi koy nuyu en passant parce que xale bu ma bu ma bu ma sopp la dafa dafa yaru baax jox cër magam yi quoi sa man xam naa ne si magam yi laa bokk donc nu fekk tamit en même temps président créé woon ANEJ ANEJ c'était pour les les dossiers à financer ñu ñu ñu créé ANEJ mais bu ñu demee ba affaire yi mu boolee ANEJ ak FNPJ créé ANPEJ avant ANPEJ sax dañuy créé woon un truc pour la banlieue joxoon ko Babacar Ba boobu tamit xam nga c'était un peu un non-sens pour créer benn truc pour waa banlieue yi donc da ngay dëkk bi quoi loolu aussi pare donc boo xoolee loolu yëpp yëpp ay milliards yu jeex yoo xam ne ne mënuñu la wax ne résultat bi lii la bu président Macky Sall yegsee moom aussi parce que temps bi ma lay wax fnp ANAJ yëpp boobu mu ngi si nguur bi. FNPJ boobu sax euh, fekk na mu nekk premier ministre. waaw donc fekke na ko. bi mu ñëwee moom bu mu xalaatee bëgg lu gaaw bëgg résultat aussi mu xalaat ne naa teg entité boo xam ne ne daal dina jël préoccupation xale yi bëgg a créer. ay entreprise mu créer DER. DER dañ ko créer rek mu dote ko trente milliards trente milliards boo koy dégg nii doo mesurer mhm. euh, euh, chiffre bi doo mesurer poids bi trente milliards dafa bari. DER aussi da ngay dégg seen communication financé nañu ñaati milliards fii financé nañu fële milliards financé nañu fële milliards ak yooyu mais de yàlla rek moo tax may wax xale yi inscrire ci forum bi ak ñi may recevoir ñoo xam ne dañu am projet euh, pour créer parce que dama ne aujourd'hui l'auto-emploi devrait être élevé au rang de culte c'est-à-dire que tey nit xale créer en am moom lu ñu war a gën a parce que di nga mën koo laaj xam naa ne ci fin bi leen ah, mooy solution yi loolu solution yi si la bokk mais loolu il faut que moom encadrement mm-hmm. ba pare il faut que ki nga koy jox nga xam ni nga koy jox mais boo gisee xale yu bari dañ la à ah, président man déposé naa mais kenn woowu ma aw ma réponse aw ma kii yow sa bopp sax da ngay dem sa ba découragé ah. parce que yow doo état. Mhm. looy def yëpp sa ñàqu bopp ngay jël dugal ko si. Mhm. bi état damay taxawee la dara pour man état bi war na boole ñoo xam ne ñu ngi siy yëngatu ñaar fukki at si li ñuy def boobu au moins suñu xam-xam dañu mën ñëw ne ah, ah dafa naa ne nii ak nii moo gën. Mhm. parce que loolu ñun nii auto emploi def nañ ko aussi des années. dama doon jël bu forom passé ñoo xam ne ñoo bokk secteur moo boolee ñeent par exemple. am na ñoo xam ne léegi cabinet bu mag la ñu yore sax du ma ko tudd ci forum bi la jógee ay juriste la ñu woon ñu amoon problème parce que forum bi pour nga gis ay avocat ak yooyu ñu ñëw def entretien dafay metti dafay dafay raar dama leen boole créer leen un cabinet léegi cabinet bu mag la yore parce que léegi def ay recouvrement ci def intermédiation ak yooyu ak yooyu c'est boobu 2008 la woon li ngi nekk léegi 2021 léegi ay ay ay ñu am tour lañu mm-hmm. waaw li taxawoon ma def loolu man maa leen xam ñaata laa leen joxoon un million rek ne leen créé leen cabinet ñu créé cabinet premier client yi man maa njëkk nekk premier client ñi ma ameloon nañu bari. <laughs> waaw nga yónni leen man waaw dañuy def leen recouvrement léegi yónni leen ma seen honoraire. ñu continuer léegi multiplier seen kii. xamul yooyu yëpp ay ay ay ay ay firnde la ko loolu état na ko def du ko wàññi dara. waaw kay mais il faut mu def ko aussi il faut nga orienté ko si loolu mu am ñu leen xelal si loolu. Mm. xam nga donc DER. ak côté d'EDER am na le fonds pour l'entrepreneuriat féminin boo xam ne Zahra Iyane Thiam moo ko yore mais loolu yëpp baax na keroog sama benn xarit mu ngi ñëw di tooñ di ma tooñ parce que Zahra suma xarit la mun na ma sa xarit bi maa ngi ko gis Liberté 6 muy doon financé ay femmes mais mun na ma xaalis bi dañ ko ëmb <laughs> dañ ko ëmb si genre benn musóor ah danaan diw yow Fatou Thiam Ngom waaw yow 2 millions la la jox jox la 2 ñu la signeel nga xam ne ne loolu aussi ah c'est trop informel ci état. ok c'est pas structuré. Hmm. c'est kooku dafa ñëwoon pour saboter ma. parce que xam na ne Zahra suma jigéen la donc. yooyu yëpp daal boo ko tënkee hmm. mooy entité yu nu créé yëpp esprit bi baax na euh, liñ ci jublu baax na hmm. mais peut-être structuration bi ak def ay personnes ressources yoo xam ne si loolu la ñuy yëngatu xam nañu loolu moo des. ak surtout def suivi. ak def suivi bi parce que dañuy financé bàyyi la nga dem mais kooku du fay mukk boo xoolee taux de recouvrement yi li ñuy communiqué ak en réalité li ñuy recouvrer ça n'a absolument rien à parce que koo jox 10 millions mu dem lekk ko amul dara fookeeru ko am sax du tax mu fay la fay waa kay donc c'est ça c'est tey booy xool le monde du travail au Sénégal dafa am dafa limité tey Sénégal yëpp boo ko boolee y a 125 mille fonctionnaires boo boolee Sénégal 16 millions parce que cent millions 125 mille yi docteurs yi sañu bokk militaires yi sapeurs yi euh, euh, instituteurs yi sages-femmes yi ñëpp vingt cinq mille personnes la xam nga bari na bariwul. Euh, booy xool par an état bi ci boppam ñi ñuy recruter c'est entre 10 mille 15 000 bu baree ba bari quinze 000 des fois c'est 5 000 par an boo xoolee secteur privé mooy ñun ñu ngi recruter entre 30 000. 35 000 donc boo leen tënkee maximum cinquante mille emploi la ñuy joxe at bu jot mais tey waxoon naa la ko keroog sa benn ah, émission. ñu ngi à presque cent mille jeunes bi may wax deux cent mille jeunes ñu ngi yegg ci marché du travail c'était ay 2003 2004 ñu ne kii. chiffres yi bari na de mais bu ñu dawalee tuuti même état bi boo leen déggee état bi ñoom si la si koy wax danaa ne on a 200000 jeunes qui arrivent mais tey c'est le double tey y a pratiquement près de 400000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail boo defee soustraction 50000 yi ñuy absorbé privé ak public mais ñaata moo des si biti gis nga nag at bu jot 350 yooyu boo ko multiplier gis nga xale yooyu moom laay wax si tubaab si nasaraan wax ko si olof mooy bombe social xale yooyu mun nañu toj yàq réew mun nañu daaneel sa régime parce que dañuy dem di dem ba dañuy étouffé parce que amatoo benn perspective sa booy xool aussi saa ñuy wax si formation ma ne léegi état bi say jël na conscience bay di def centre formation 52 pour cent xale yi ut liggéey amuñu formation soit jànguñu soit ñu ngi yem primaire soit soriwuñu dañu génn précocement du système scolaire donc 52 pour cent dafa bari ñoo xam ne ni amuñu formation donc il faut que état bi ñun ñëpp sa il faut que nu ñuy wax ñu tenir compte si loolu. Ah, mooy yi ku nekk dugal ci sa loxo. ku nekk dugal sa loxo ba pare bàyyi xel ne xale yi bomb la xam nga bomb. gis nga it euh, euh, Tunisie. Euh, xale yi ñoom ñoo daaneel daaneloon benn àll ba wàññeeku na léegi. ñu ngi yëngalaat. c'est léegi y a une semaine. Ah. ñu ngi yëngalaat xam li tax dañu dem ba étouffé. Ah. xam nga 350 000 avant 350 000 y avait 300 y avait 250 000 qui arrivaient par an y avait 200 y avait 150 et quelques mais xale yooyu yëpp des millions de jeunes qui sont là sans perspective d'avenir mm-hmm. désœuvrés ils sont pas encadrés ba gis agression yi di bëri yu bëri yoo xam ne xamuñu ko woon mais parce que loolu la xam nga boo nekkee sa kër sa kër papa sa kër yaay sa yaay feebar ordonnance bi nekk cent yow nga nekk mag nekk si kër gi ñoom def nañu lépp ba nga jàng am di ak yëpp mënoo ko jënd da ngay am kersa possibilité boo gis xalaat ne war nga si mun am xaalis da ngay dugg rek sans réfléchir boo gisee. Euh, euh, émigration yi xale yi di jël jëluñu ko parce que dañu ko bëgg a jël. Mhm. mais dañu xalaat ne loolu mooy seen chance ñoom. amuñu beneen pexe. loolu yëpp nag tey sa émission bi dafa am solo sa maa ngi ñaan ñu koy déglu bari parce que piste de reflexion moo am solo. Mhm. boo si nekkee si dëkk si réew da ngay tabax. Mhm. tabax bi mooy ñun ñëpp dañu war a bokk gis-gis mun nañu bañ a bokk nag approche. état bi moo am moyen état bi muy bu Macky Sall Ablaye Wade Abdou Diouf lii mel naa la fukk structure mm. depuis 70 ba 2021 mais booy xool benn mënu la wax bu paree rek bu régime boobu jeexle fàtte nañu loolu waaw doo mun xam ci lan la ñu def donc je crois que il faut que maa ngi wax toujours moo boobu jël si waat na juróomi yoon wala juróom benn yoon mooy mutualiser mooy boolee mu am traçabilité ñu jël ay entité buñ ma sa ñun jël ñun. Mm-hmm. fondation emploi jeune MEDES mais ñu jël ñeneen ñoo xam ne ne mm-hmm. seen xel màcc na si lool ñu boole leen ci sélection yi boole leen xale yi ñuy financé parce que ñëpp soxla wu ñu xaalis pour créer entreprise. Mm-hmm. mais li ma la wax sànq si la bokk. mooy formation yi ñu am background ba pare jàng ba am bac ba raw mu bac foo ko dugal jàngalaat ko dina si mën a génn. donc je pense que solution avenir loolu la donc di la sant encore euh, di la gërëm euh, di ñaanal yàlla aussi xale yi nekk fii ñi jàng ñu jàngul yépp parce que booy xool parce que suñu concept yu ñu créé dafa bëri euh, faatu en 2003 créé naa ce qu'on appelle APC c'est l'approche par compétence mooy xale yu amul bac mais am xam-xam waaw bu may wax APC en 2003 toujours noonu la boo teelee am dëgg dana wax kii lan lay wax APC approche par compétence mais léegi yaa ngi dégg ñu koy def dugal nañ ko si si si si si programme formation yi euh, bi may dem deux mille un ak président Abdoulaye Wade ñuy dem Genève euh, benn projet rek la ñu retenir foofu man maa ko yóbbu woon boo xam naka la tudd léegi ñu ngi koy def boobu c'était l'alphabétisation numérique waaw moom la jóg ISEC bi MEDES la bokkoon waaw parce que ku nekk da nga koy waxal mu def. Ah. moom laa doon waxtaanal. moom moom si gënoon ñaax. Hmm. dama président xale yi nekk si àll beeg yooyu. ce temps boobu ordinateur ñu ko am bariwul sax il faut que ñu initier leen ndax ñu mën na connecté wu ak le monde entier. Hmm. ku nekk fël bu méngin sa nekk njaafat hmm. nekk fu kulukooro mun na bu yaree ordinateur ah. mun ko utiliser mën na wax ak ku nekk Dubaï wala ku nekk Jeddah wala ku nekk Washington ñu defal projet bi ma yóbbu ko c'est le seul projet qui a cest à di former les formateurs. di jël xale taalibe yi xale yi nekk ci àll bi. former leen ba ñu mën a utiliser internet fexe ba ñu mën a kii pour wax la rek li ñu def ci mbir bi yaatu na peut-être benn émission mën ñu ko ci wax wala mais au moins ñu xam nañu suñu état d'esprit depuis ñaar fukki at. loolu la loolu la amuñu benn dërëm bu ñu ci am. fayu yàlla leen si am ñu ngi si sant yàlla nag ah. parce que yàlla mu ngi yokk suñu mën-mën ah. di yokk suñu teraanga ah. di yokk suñu sutura parce que moom laa wax fayu yàlla amul amul amul àpp fayu nit moom bu mm-hmm. si sa yaakaar parce que nit moom da lay décevoir toujours mm-hmm. booy def da ngay def ngir yàlla rek xam nga fayu yàlla si yàlla daf la koy si àddina waaw da la koy wan si euh, di di yokk say say say teraanga di yokk say wërsëg di di yokk say xéwal mm-hmm. yow sa doo comprendre mais parce que di nga xam ne ne junni junni nit yi ngay dimbali chaque jour sa doo si xaar dara ah. moom la la yàlla di fay di ko jaarale ci ay fii ay dossier ay kii ak ko ah. may di sant yàlla di la gërëmaat di nuyu waa groupe promo consulting yépp ak waa MEDES ak sama waa kër di nuyu soxna si aussi ak képp koo xam ne may jàppale si liggéey parce que métti dafa métti nag aussi ah. xam nga boo amee yenn responsabilité yi tey ñu ngi wax Euh, si sama casquette MEDES comme mënoon nañu wax sama casquette président groupe promo consulting sa xam ne entité yu bari la ngànk mënoon nañu wax aussi si conseil économique social et environnemental euh, maa yore commission économique bi mooy commission bu fa gën a am doole mënoon nañu wax aussi si YATA YATA affaire yu numérique la c'est l'initiative africaine des technologies avancées mënoon nañu wax tamit si affaire GPF c'est le groupement du patronat francophone maay premier vice président bi ak ak ak ak ak ak ak loolu yëpp nag. da ngay sant yàlla parce que dañ naan kii naka la mun a. ŋànk loolu yëpp gérer loolu yëpp. <laughs> mais yàlla mu lay dimbali ak nga am sa compréhension famille ak ñii la jege. Mm-hmm. parce que doo am samedi doo am dimanche. Mm-hmm. ñi jege man sax xam ngeen ko uh-huh. euh, euh, doo am guddi. Mm-hmm. Euh, yaa ngi tukki lépp doo xam si tax ngay daw parce que da nga naan ah man de sant naa yàlla léegi liggéey naa loo xam ne mën naa toog samay doom yi mën nañ si liggéey mën nañ si dund sama sët yi ak mais da ngay am toujours ay challenge yooyu bëgg di relever sa yàlla moo la si xiir daal donc di delluwaat di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla mu bàyyi ñu fi ba dewee ñu mën a defaat émission bu mel nii évaluer ko ñu ngi préparer vingtième édition forum du premier emploi le 2 3 février la ñu ngi xool nag dañ koy confirmer ah. ñu ngi waxtaan ak état bi pour xool comme xale yi dañu dañu dañuy dañuy bari macha allah nag lañ koy mën defee nag dañ ko confirmer ak corona bi pour dañ koy avancé ba première euh, état d'urgence sanitaire bi euh, yëkkatu ko ñu mën ko def en tout cas daal ñu ngi siy liggéey fi mu nekk inscription yi pratiquement ñu ngi koy arrêté parce que xale yi inscrit dañu bari ren bari bari bari bari mais euh, di ñaan yàlla rek ñi si ëpp seen yaakaar bañ a tas yàlla taxaw ñu comme ñu taxawee si fukki at ak juróom-ñeent yi passé ba xale yi bu ñu ñëwee mën a am xëy mën a jàppale seen ay waajur dama koy wax toujours loo leen am rek bu leen fàtte seen papa ak seen yaay. mais surtout seen yaay. waaw yaay dafa am solo. waa dama si insister xam nga papa papa yi ñëpp la. mais yaay moom benn rek la. ñun ñëpp ak ñu ñuy déglu nii xam nañ li may wax yaay benn la su nekk mu fekk la si. Mm. su lu la dal moo lay gën a sonn. donc euh, di def ñuy ñaanal yaay fu mu toog mu ngi lay ñaanal donc lu ñu am rek nañ ko bokk suñu waajur yi. loolu mooy tax suñu suba yàlla mën ko leeral mën a gën a yokk suñu ay mën-mën. président ñu lay gërëm rafetlu aussi message boobu nga tëjee yónnee ko ndaw ñi toujours ñu dégg ko si say wax euh, président MEDS Mbagnick Diop la ñu doon dalal ci dem ak tey doon waxtaanee ba tey wàllum euh, chômage di ñàkkum xëy ci dëkk bi gannaaw mbirum état ñu ñëwoon nag tey ci secteur privé bi mais surtout MEDS ak euh, forum du premier emploi niki noonu fondation emploi jeune bi nga xam ne taxawal nañu ko am na ñaar fukki at ci ren participer nag ci lu am solo wàllum euh, xeex ñàkk xëy ci Sénégal démb ak tay la woon Fatou Thiam Ngom ne woon ci kaddu gi feggu ak Diabo Diallo ci machine bi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen émission bi mun ngoon kiir teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu page ci YouTube ñu yendoog jàmm